yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activé cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uuzu billahi min shururi anfusina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 mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli sëlmal ci ab yonentam ñi ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla te muy sax ci ndigal bàyyi tere gannaaw loolu borom bi subhaanahu wa mu ngi ñuy wax ci alquraanul karim suuratul xujuraat yaa ayyuhan naasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allaahi atqaakum inna allaaha caliimun xabiir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci xadiisam bu wér ne yaa ayuha nnaas ala inna rabbakum waaxid wa inna abaakum waaxid ala laa fadla li arabiyin ala ajami wala li ajamiyin ala arabi wala li ahmara ala aswad wala li aswada ala ahmar illa bittaqwa aballart borom bi subhaanahu wa ci laay jooju lum ñu wax dafa woote waaye ci ban tiitar la woote wootewul ci tiitaru ñi gëm waaye daa woote daa woo nit ñi ci tiitar bu gën a yaatu mooy yaa ayyuhannaas waxul ne yéen ñi gëm waaye dafa ne yéen nit ñi yéen nit ñi nag buñ ko waxee ñi gëm ak ñi gëmul ñépp ñu ngi ci biir ba mu leen woowee ci tiitar bu yaatu boobu lan la leen wax dafa ne inna xalaqnaakum min dakarin wa untha maa leen bind ngeen jóge ci góor ak jigéen ma def leen wa jaalnaakum shuuban wa la def leen ay peuple def leen ay tribu ma def leen loolu lu ngeen defa ni moo tax ma def leen ko ndax dama leen koo def ngir ngeen di boddikonte ci seen biir ngir ngeen di xeexante mu ne déedéet defuma ko ngir loolu dama koo def li taarafu ngir ngeen xamante nangoonte ngir ngeen xamante nangoonte in akramakum inda allahi atqaakum te ngeen xam ne bépp peesekaay buñ daa peesee nit ngir xam ba xam moo gën walla gënul peesekaay yooyu yépp sànni nañ ko benn peesekaay moo fi des mooy taqwa ku gën a ragal yàlla rekk mooy ka gën li jox nit poids du fii laa bokk du fa du fee laa bokk du nii laa mel du naa laa mel du fii laa dëkk du faa laa dëkk waaye liy jox nit poids mooy ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa ci gëna leeral laaye boobu ndax moom yàlla de ko yónni ngir mu leeral alquran li na linnaasi ma nuzila ilayhi loolu la ko yàlla wax dama wàccee ci yow alquran ngir nga leeralal ko nit ñi moom itam mu woote bi muy wootee tam ni alquran woote rek noonu la woote ci tiitar bu yaatu boobu au lieu mu ne yéen ñi gëm dafa ne yéen nit ñi yaa ayyuhan naas yéen nit ñi na ngeen xam ne ala inna rabbakum waahid na ngeen xam te nangu ne seen borom kenn benn la du ñaar wa inna abaakum waaxid na xam ne seen baay benn la yéen ñépp yéen a bokk baay ay doomi baay dong ñoo fi nekk ala la fadla li arabiyin ala ajami ndax moom yàlla da ko yónni mu dib arab mu yónni ko ci biiri arab ca am ñu fa nekk ñoo xam ne du ñu ay arab def giñ ko def mu nekk arab yónni ko ci biiri arab am ñu fa nekk ñu dul ay arab mën naa tax am ñu defe ne arab moo gën ku dul arab mu ne leen ala la fadla li arabiyin ala ajami ab arab gënul ab làkkat ñoom ñépp a yem làkkat nag buñ ko waxee mooy ku dul arab rek waaw loolu nag làkk yépp ay waxee noonu wolof danaan la dégg nga wolof nga ne ko waaw du boo dul wolof mu ne làkkat nga arab itam noonu la koy defe làkkat mooy kuy wax lu dul saw làkk rek kooka làkkat nga koy tudde soo demoon ci pulaar ku dul wax seenu làkk làkkkat nga séeréer ku waxul séeréer làkkkat nga pour ñoom waaw mu ne leen nag arab gënul benn làkkkat waaye benn làkk itam benn làkkkat itam gënul arab mënta gën arab arab mënta gën làkkkat làkkkat mënta gën arab waaye ku xonq nit ku xonq nit ku weex mënta gën ku ñuul waaye ku ñuul itam mënta gën ku weex mënta gën ku xonq lu dul rekk ci ragal yàlla ragal yàlla daal la ñuy gënante lii mu waxoon ko ca ak ja nga moom la tàggoo woon xeet wi moo tax ba mu ko waxee ba pare mu ne abalant ndax jotele naa ñu ne ko waaw waaw li la yàlla yónni woon kay jotale nga ko jotale nga ko lépp loola di wane ne kon lépp lu mu jottaliwul rekk loola bokkul ci diine mbokk yi tey ñu war a waxtaane loo xam ne nii actualité la ci réew mi ndax dégg si dégg nañ fi yoo xam ne nii daawu fi am ay discours yoo xam ne nii xamuñu ko woon waaye ay jëf yoo xam ne ne tam xamuñu ko woon ca discours yi ñoo jur jëf yi moo tax wax baaxul dégg nañ fi ay discours etnisist yoo xam ne nii day woote ci boddikonte ci biiru xeet ca nag bu fekkonte ne dañ koo dégg ci nit ñu ordinaire du am solo waaye dañ koy dégg ci ay responsable yu kawe loolu moo koy jox danger bi mu am waaye dégg nañ fii ci kuy topp actualité fii ci université Dakar ñuy wax UCAD ñuy wax xeetu joolaa ak séeréer yuy jàppante di jàppante ci turu xeet loolu nekk lu garaaw di benn mbir moo xam ne nii mën nañu ne inédit la inédit mësu fee am waaye am na Sénégal nag nekkoon pays boo xam nii dañ ko daa tagge ci bennoo gu ñu bennoo paix social bu fi am cohésion social bu fi am jàppante goo xam ne nii xeet wi dañ koo jàppante mbokkoo goo xam ne dañ koo mbokkoo loolu lañ leen daa tagge kon bu ñu demee ba yii di fi am ñépp war nañoo yëkkatiwaat seen kàddu ñu jéem a fay loolu mu jóge fi in fois pour toutes na fi jóge lii nag li ñu Sénégal lim amoon lu ci baree bari lii problème bi loolu ñu doon tagge senegaal du ñu xool ba xam lu tax danga dégg politiciens yi moo xam de l'opposition comme du pouvoir moo xam ñi bokk ci opposition bi wala ñi bokk ci pouvoir bi da leen di dégg kenn ku nekk naan Sénégal nii la meloon naa la meloon waaye lu tax Sénégal meloon noonu ak lu ko melal noonu duñ ko tudd mukk kenn du ko ci tudd ca lislaam nag moo tax Sénégal am tagg wowu mu am kon mbir mi nañ ko delloo ci li ko fii andi muy lislaam dara andiwu ko fii lu dul ci lu dul lislaam laata lislaam di ñëw fii lañ daan nekk di xeexante di xuloo di reyante di jàppante ci sunu biir di jaayante ay jaam lislaam a ñëw dindi fi loolu kon mbir mi nañ ko delloo ci ku ko moom ndax buñ ko delloowul ci ki ko moom ñu réere kooku naa nii lañ meloon naa lañ meloon du ñu xam bu ñu bëggee saafara fan lañuy dellu li tax ma wax loolu mooy lislaam ci boppam lim ñu defal nun ñii jëkk na mu defal ko ay xeet fa mu wàccoon daleen a fekkoon ñi xeex di reyante mu nekk fa mu nekk fa lépp nekk fa ba mu dikkee moo leen génnee ca loolee waaye ba mu leen ca génnee tam nag ba mu leen ca génnee tam nag am na ñoo xam ne ñii ñi ngi doon ñi ngi leen do ñi ngi ci woon ci seen wet di leen tëru ngir lool yi ñu am ñu ñàkk ko ñi ko doon def nag ñaari camp lañ camp boo xam ne ñu ngi ci bitti lislaam muy yahud ya jiite ko ak camp boo xam ne nii ñi ngi ci biir lislaam muy naafiq yi loolu nag buñ ko xoolee tey jéetam dafay nuroog suñu situation bi nga xam ne moom lañuy dund noonu ndax nun am na camp bu nekk ca biti colonisateur bi ak ñañu am am impérialiste yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp amul jenn jàmm joo xam ne nii yéene nañ ko sunu réew yi suñ fi mënee nekk di napp bu géej gi dalee ñuy napp di am li ñu bëgg ñu def loolu su fekkente ne xam nañ ni bu géej gi dalee du ñu mën a am li ñu bëgg ñu nëxal géej gi ngir mën a am li ñu bëgg daat fi indi yoo xam ne nii kenn xamu ko ay ethnicisme tribalisme ay mbiri terrorisme yooyu yépp dégg ngeen ko ñu ko fi wax ci réew mi ñooñee ñoo koy xamb waaw ndax dem nañoo dem ba gis ne ah mbir yi bu dalee nii kat boo yeexee noonu li ñu daa am dootuñu ko am kon nag mbir yi nañu jéem a fexe ba géej gi mer géej gi nëx bu ko defee ñu mën a am liñ bëgg kon ñooñu ñooy yahud ya fële ca lislaam ba tey ñoom itam ay yahud lañ ba tey waaye ci ñi ci beneen camp bi muy naafiq yi nekkoon ci biir lislaam di fexeel jullit ñi ngir euh, seen bennoo boobu seen mànkoo googu seen mbokkoo googu ñu yàq ko ñooñu ay naaféq la yu nekkoon ci biir jullit ñi ñooñoo tam tey ñi ngi fii ci biir réew mi am na ñoo xam ne nii xam nañ ne seeni intérêt nekkul ci réew mi am jàmm bu réew mi ñàkkee jàmm ci lañuy gën a am seeni intérêt ñooñoo tam nañ leen xam ñooy ñooy naaféq yi ñooy naaféq yi ma nettali ñaari yooyu ngir illustrer loolu wane ko ci anam gu leer nañ yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu dikkee Madina dafa fekk ñaari giir yu mag benn ba ñu koy tuddee Aws benn ba ñu koy tuddee Xasraj ñuy ñaari giir yu mag ca Madina dëkkandoo fa ak yahut ñaari giir yooyu xam ngeen ni ñooy ñi nga xam ne ñoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fee ca Madina ñoom ñu nekkoon ay araam ba ñu déggee yonent bi ñu ñëw ànd ak moom gëm ko ñaan ko mu gàddaay ñëw foofu ñu taxawal lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def loolu ñuy ñaari giir ñoo xam ne mësuñoo am jàmm mukk mukk ba yonent bi jikkee jàmmale leen mbokkale leen ñu nekk benn amatuñ lu leen di boole lu dul lislaam ñu teg fële tribalisme ethnicisme te lépp ñu teg ko ci suuf yahud yi loolu naqari leen lool am ku ñuy wax Shaas ibnu Qays muy màggatum yahud danañ wax ne am mag mat naa bàyyi cim réew waaye na nekk na nekk magum jàmm waaye mag moo xam ne nii aw ay rek lay def jërta bàyyi cim réew Shaas ibnu Qays ab yahuudi bu mag la daay romb ñaari giir yooyu ñu toog ñoom ñépp ñu nekk ay jullit juboo mel ne mburoog soow waaye nag bu leen ko tex mburoog soow yi xew ba mu leen gisee mu ne ñii day banu xayla banu xayla buñ ko waxee mooy aw sa xasraj ñii de bu ñu nekkee bu ñu amee jàmm ñii de seen juboo gi bu continuer nun day dootuñu xaj ci dëkk bi kon nag war nañoo fexe ba dik def nuñ ko yàqe mu daal di yebal benn waxambaanew yahut ne ko demal ca seen biir ñoom ñetti at ci gannaaw rek def nañ fi xeex boo xam ne ñuy xeex bu méttee métti la ci diggante ñaari giir yooyu muy aw sa xasraj ñu tudde ko yow mu boas dama bëgg defoon nañ ca ñaari kaa yépp defoon nañ ca ay woy kenn ku nekk di xas sa morom di tagg sa bopp mu ne ko dama bëgg nga dem ba fekk leen fa ngeen toog fa ñu toog nga wax woy yooyu nga jàng woy yooyu mu ñëw jàng ko daa di commencé xam nga góom boo xam ne nii wéragul rek wokk lay bañ boo wokkee rek mu wunni ñu daal di commencé ah ku nekk di xool sa morom ak la nga waxoon ak la nga woon xeex boobu yee muy boas aw su moo ca gañe woon xasraj waa xasraj daal di jóg ca saasa ne leen su ngeen bëggee ñu furli léegi ñu seet kan moo man waa waa Aws ne leen bismillah ñu daldi joxante rendez-vous nañu dem barab sàngam nañ daje barab sàngam ci Madina alxarra xoolal aw ay tafaar ni mu gaawee ba ñu waxee loola aw si gépp àndandoo ku nekk di far faral ñi bokk ci aw si ñëpp faral aw si ñu bokk ci xasraj ñépp faral xasraj ñu fas yéene dajaloo xeexat loola ba mu àggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jóg ànd ak muhaajiroon yi ya mu àndal daldi ñëw ci ñoom ne leen yaa maachar al muslimin allah allah yéen jullit ñi taqoo leen ak yàlla taqoo leen ak yàlla taqoo leen ak yàlla abi daawal jaahiliya ndax dangeen di woote wooteb jaahiliya wooteb ku réer wooteb ceddo ngeen bëgg a delloo si fii wa ana bayna ashurikum ca ma nekk ci seen biir jógeeguma fi kon yéen boo fi jógee nu ngeen di def dangeen di woote woote bu bon bii gannaaw ba leen yàlla jubalee ci lislaam teral leen ci lislaam dagg li nga xam ne moo nekkoon ci seen diggante ci ak noonoo ci turu lislaam xetti li leen ci turu lislaam ci kéefër tàppe seeni xol ndax dangeen a bëgg a tarjiuna ila ma kuffaara da ngeen a bëgg dellu tey nekk ay yéefar ba yonent bi waxee loolu ñoom ñépp lislaam dafay dund ci ñoom ñoom ñépp ñu daal xam yëg ne ndeke lii kat kon seytaane moo moo moo fi moo fi moo fi doxoon rek innaha nazaratun min asheytaan ah seytaane moo ko andi woon ñu daal di jóg kenn ku nekk daldi di sa morom kenn ku nekk nuyu sa morom kenn ku nekk baalu àq sa morom ñu daal di àndaat ànd ba gën a rafet lii xew na ci Madina yahud yi def ko lii la tubaab yi bëgg fii ci sunu réew yi surtout nag jamono ji nga xam ne dañu ne réew mi ah nangam a ngi fi pétrole a ngi fi gaz a ngi fi zircon ngi fi nangam ak nangam ak nangam ay mbell yu bari yu ñuy tudd yooyu defe nañ ni bu réew mi dalee rek duñ li ñu bëgg duñ ko am moo tax nu ñu mën a def danañu fexe ba nëxal réew mi ca loolu nag nun buñ ko nangu beneen bi xam nga loolu ca bitti la jóge yahud ya maanaam ñu dul lislaam ñëw ci lislaam beneen xisa bi ñëw ci jullit ñi jóge ci yahud yi ñëw ci jullit ñi fii mu ñu ay woo xam nii mooy jóge ci tubaab yi bu jëm si ci nun mu tolloog loolu tembe tey ñu ñëw ci ay woo xam nii ci biir jullit ñi la jóge yeewoo ci biir jullit ñi muy ay woowootam fii li ñu bëgg fii ci sunu réew muy discours yi ñuy dégg xam ngeen ni ñu koy def du ñu ay tubaab du ñu ñenn waaye ay sénégalais lañ xisam ñaareel bi ci benn xaswa benn xare bu ñuy wax mustalaq banu xaswatu bani mustalaq wala ñu koy tuddee te ba tey xaswatul muraysiya ba mu xewee naafeq ya dañ fa def ay njombe yu rëy benn bis ci loo xam ne lii jaabir abdullah moo koy nettali mu ne kasaa rajulun min al muhajirina rajulan min al ansar kasaa kasaa bi maanaa daraba xam naa lu xewoon ci diggante kenn koo xam nii ci muhajiroon yi la ak kenn koo xam ne nii ci lansaar yi muhajiroon yi mooy ñi jóge jullit ñi jóge Màkka lansaar yi mooy ñi leen euh, hébergé woon ci Madina am ci ñaar ñu jote kenn ka dóor morom ja kanga xam ne moo bokk ca lansaar ya waa Madina daan ne eh yéen lansaar yi jóg leen muhaajiroon yi ñu ngi ñuy ndoggutu ñu ngi fekk ci sunu dëkk bëgg ñoo nangam jóg leen ñoom ñépp ñoom itam ñu daal di fagu naa naa la ni yeggaguñ ci lislaam ka nga xam ne moo bokk ci muhaajiroon ya moom itam daan ne eh muhaajir yéen muhaajiroon jóg leen. lansaar yi ñuy jóg jëm si ci ñu kaw ay wa daat jóg ka nga xam ne mooy yahud bi gën a bon muy abdullahi ibnu ubay ibnu salul nga xam ne moom lañuy wax ni mooy rasul munafiqin mooy seen njiit daal di exploité loolu ne ah bunta ngi nii bunta ngi nii pour yàq daal di di xiirtal muhaajiruuna ci lansaar di xiirtal lansaar ci muhaajiruun yonent ba sallallahu alayhi wa bi mbir mi agsee ci moom mu dégg ko lam ndox mu ne maa baalu daawal jaahiliya lan moo xew lan moo fi indi jaahiliya gii lan moo fi indeeti ceddo gu mel nii gannaaw ba ñu feesoo étape bi ba tey lu lu fi lu ñu arrière loo ñuy ñëwati fii ñu ne ko dafa am benn mu lansaar kenn ku bokk ci muhaajiroon dafa dóor kenn ku bokk ci lansaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne daawuha fa innaha muntina daawuha fa innaha muntina daawuha fa innaha muntina bàyyi leen woote bi ngeen woote bàyyi leen mbiri tribalisme bàyyi leen mbiri ethnicisme bàyyi leen mbiri xeet bàyyi leen mbiri couleur wala nangam bàyyi leen yooyu yépp yooyu mbir yu xasaw la mbir yu forox la mbir yu kenn wërta tudd la ba mu leen waxee loola ñoom ñépp ñu daal di dellu si kenn ku nekk ja nuyoog sa morom saafu xanteeg sa morom fóonanteeg sa moroom mbokk ga dellu ne bey ndax nun dërsi bii ñu am dërsi bii nga xam ne muhaajiroon ak lansaar niñ ko defee ca la jiitu loolu aw sa xas rek nañ ko defe ndax nun danañ ko ko defe buñ ko ko defee noonu lañ ko ko war a defee suñ ko ko deful noonu lañ ko ko war a defee ca suñ ko ko deful loolu dana andi fitna joo xam ne nii maar day taali ca finde joojee bu ñëwee ku yaakaar ne danga nga ca mucc doo ca mucc te nun fii ci Sénégal ay mbokk lañ mas doon koo fi gis ku ne koo fi gis ku ne koo fi gis ku ne am na ay mbokk ca weneen xeet bu dee wolof am na mbokk ca pël ya bu dee pël am na mbokk ca wolof ya bu dee séeréer am na mbokk ca joolaaya bu dee kenn ku nekk dañoo duggante naar ya nun ñépp di benn dangay dox da ngay dox damay dox benn waay dikk làkk ma tukkuloor ma ne ko ah dégguma de mu ne ma dangay wax rek waaye yow deriti tukkuloor nga yor ca man loolu mu wax dëgg la mën naa nekk dëgg waaw ah. kon mbir yi nun ñëpp benn lañ nun ñëpp benn lañ ñi ñu fii topp tey muy Sëriñ Tuubaa Alaaji Malik ay tukkuloor lañ seeni cosaan ay tukkuloor lañ tey ñi ngi nekk ay wolof kon nun ñëpp benn lañ bu ñu kenn indi li mbir yi mbiru terrorisme moo tam sénégalais ku nekk xam na ni xamul luy terroriste nituk jàmm la nituk salaam la ku ko fi wax dangaa bëgg a wax lu la neex buñ ko nangu buñ ko nangu buñ ko nangu kàddu yooyu discours yooyu nañ ko tëral ci suuf ki nga xam ne mooy président de la république na digal ñépp ne leen boo fi déggati kàdd ku mel noonu bu ma ko déggati ci pouvoir bu ma ko déggati ci opposition bu ma déggati kenn ku ko wax te lii ñu lislaam may nag ñu jéem koo sàmm yaakaar naa paix social bi ñu am ci fan yii ak jàmm ji nga xam ne moo ñu doon gete di ñu doon ñu xaar dara mayuñu ko lu dul diine ndax buñ ne kilifay diine yi mooy mooy lislaam te ñoo fi andi loolu kon nañu xam sunu valeur xam li ñu am ñu sàmm ko ca fonk ko muy lislaam suñu ko deful danañu rëccu waaw nañu teg fee mbiri xeet nañu teg fee mbiri nii laa am couleur bi laa am wala couleur ba laa am nañu mbiri régionalisme fii laa dëkk ci région bii laa dëkk wala ca baa laa dëkk nañ ko bàyyi yii yëpp nañ ko bàyyi ca teg ko fi saw allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina charra ma qadayt fa innaka taqdi wala yuqda alayk allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batila warzuqna jtinaaba allahuma allif bayna qulubina wa aslix data baynina wajcalna fi safin waaxid allahuma xaqiq waxdatana wajcal safana safan waaxida wala tufarriq baynana allahuma allahuma jcalna natamassaku bixablika almatin imtithalan liqawlika wactasimu bixablillahi jamican wala tafarraqu qumu ila salatikum yarhamkum allah